haa wala duniyaati haa wala duniyaati shukran shukran shukran shukran assalaamu aleykum tabarakallahu ñi ngi leen di nuyu di dellu ziyaari waa xadara bi yépp di leen delloo njukkal te di leen ndokkeel ci bés bi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 dara deseetu la di gërëm itam ñi nga xam ni ñoom lañu fi fekk jiital ci waa daara umul xura nga xam ni seen waxtaan la nu fekke si nuyu itam ki waral bis bi di Cheikh Xasim Jaañ ak mbokkam yu baax yi nga xam ni ñoom la fi am te ñu ciy jiital magu kër gi di Cheikh Assane Diagne dafa mel na buñ ko tuddee rekk tudd nañu ñëpp yal na yàlla barkeel leen te ngeen jéggal nu nag ndax dañu xaw a soj xam naa sax bi nu dabee yàggul waaye comme jotaay bii jotaay buñ daan faral di barkeeloo la kon bu nu sojee sax du tee nu barkeelu fi nin daan def rek ndax dama dégg benn mbokk mu baax mu wax ni benn mag ci réew mi wax na ni ñaar ñoo yàq réew mi nee na buñ fi dañoon rek réew mi baax mu ni ki ci jiitu mooy ki nga xam ni dafay wax di wax di wax ba la mu xamoon jeex mu continuer di wax ak ki xamul dara ci li muy wax muy wax rekk su ko defee mag mi ni ñaar ñooñu su yàlla dimbalee mbokk yi ba ñu jëlee leen fi rek àdduna daal di baax réew mi daal di baax waaye fa tabarakallahu mu mel ni jotaayu alxuraan la fekke si te jotaayu alxuraan dafa am li ci yàlla wax jaare la ko ci ku tedd ki te di yonent bi mu jàngal jàngal ñëpp ni jotaayu yiw la waaye nee na yiw nag boo ci bëggee bokk dangay ngay boole dégg ak topp ndax mooy lii lay jëriñ waaye yàlla dogal alxuraan bii nu fekk fi nekk alxuraan boo xam ni interprétation yi wute na dégg-dégg yi wute na waaye lim alxuraan mësoon doon ci xaqiiqa ba léegi loolu la alxuraan di doon moo tax yàlla bi muy junjee ci biir téereem bi nga xam ne lu nekk a ngi ci def ci wax rekk li jëmmu àttan wax ci li mbindéef di dégge waaye jubluwaayam dëgg dëgg dëgg ñi fekke woon rek ko ko fekke woon moo tax alxuraan kàddu yàlla la waaye bul dégg ne alxuraan kàddu yàlla la rek nga ni lu yàlla wax lépp rek daf ko dëxëñ ci benn téere rekk wàcce ko ndax léeg yàlla wax dara du doon farata kenn ku dul farataam moom sunu borom léeg mu wax muy farata malaayika yi léeg mu wax muy farata mbindeefu xayb yi léeg mu wax muy farata mbindeefu shahada mu jox yonent bi it alxuraan mu indi ko pour waa ahlu shahada def ko seen constitution moo tax mu am lum ñu ci jàngal ndax yàlla jàngal nañu alxuraan ci weer bi mu ko wàcce shahru ramadan alladi undila fihi alquranu hudan linnaas wa bayinatin min alhuda te mooy weeru koor moo tax bi nit ñi di commencé di yëg ni weer ba woor daf ca am wàll ñu bëgg ko interpréter neneen yàlla ni déedéet yàlla ni déedéet parce que condition la ci diine fa man shahida minkum sha'ara falyasumhu wa man kaana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayaamin uqar waaw lu tax yuridu llahu bikum al yusra wala yuridu bikum al usra wa li tukmilu iddata wa li tukabbiru llaha ala ma hadakum wa laallakum tashkurun moo tax condition yëpp yàlla tëral la xanaa laajte ku la firil mu jàngal la na ngay na ngay woore ak ci ak ci ban cadre nga koy teg moo fi nekk waaye comme cadre alquran bi la mu ni chahru ramadan alladi undila fihi alquranu hudan linnaas wa bayinatin min alhuda walfurqaan yàlla ni wàcce nañu alquran ci benn moment te muy weeru koor shahru ramadan waaye bi mu xuusee dëgg-dëgg pour nettali jëmm yi ci ban précepte la wàccee alxuraan mu ni mën naa leen limal benn guddi muy bismillahi rahmaani rahim inna anzalnaahu fi laylati alqadr wa ma adraaka ma laylatu alqadr laylatu alqadri xayrun min alfi shahrin tanazzalu malaaikatu wa ruuhu fiiha bi idni rabbihim min kulli amr salaamun hiya hatta matla'il fajr mu jàngale guddi ga waaye xam nga boo déggee guddi gi ni ko yàlla jàngalee sax dangay xam ni ci biir jàngale bi am na lu la yàlla waxul danga koy xam lim la waxul mooy guddi gi dafa am ñaari cadre cadre bi njëkk mooy cadre officiel mooy li yàlla wax ñëpp dégg ko waa ahlu shahada yëpp bokk ci comprendre beneen cadre bi mooy cadre officieuse mooy li yàlla wax waa xëy bu dong comprendre parce que boo déggee ni mu waxee sóoratul qadri inna anzalnaahu fii laylatil qadr yàlla nee na nun wàcce nañ ko ci guddi laylatul qadr muy muy guddi alqadr waaw ah, mais est que wax na la alqadr mooy la waaw ah. danaa ci ñëw ci cadre officieuse bi ah. parce que nekkul ci ci wax bu siiw bi ci wax bu làkk bi la nekk mu ni wama adraka ma laylatul xadr kan moo la mën a wax luy guddi alxadr ngay déglu pour mu wax la luy guddi alxadr waxu la ko dafa ni la laylatul xadri xayrun min alfi shahri guddi alxadr moo gën junney we doon ngëneel bala la wax waxu la guddi ga ngëneelu guddi ga la wa ma adraka ma laylatul xadr laylatul xadri xayrun min alfi shahri décrire la guddi ga tanadalu lmalaikatu wa ruuhu fiha bi idni rabbihim min kulli amrin waaw ah. bi ñu tudd ruuhu moom malaika yi daanu ànd wàcc ci seen eh, permission wu boroom pour ndigal bu nekk ñu mën ko exécuter waaw ah. parce que ruuhu it danaa ci ñëw ndax ñenn ñi nee nañu mooy jibril alayhi salaam te ruuhu du jibril ñenn ci tafsirkat yi nee nañu ruuxu mooy jibril te ruuxu du jibril boo demee ci monde bi yàlla di tudde sharahu rih mi daa ko fekk jibril fekk fa ruuxu waaw Ibrahim mi ngi ko doon junj ci monde yooyu nga xam ni mooy juróom-ñaari monde yi yàlla di yi yàlla di dëkki ginnaaw bu ñëwee aljana ba noppi ndax Mawlaaye Cheikh Ahmad Tijaani li mu gëm mooy ni yowmal xiyaam am na daje nañu fat nañu bagage yi ñiy dugg aljana dugg nañ fa ñiy dugg safara dugg nañ fa rek xamatoo lu ci des Cheikh gëmul loolu waaw boo déggee dëgg-dëgg xaqiiqa da yëg aljana sax bu fa yàlla ñëwee ba ngan nga jeex fan lay yàlla di toxu dem ndax am na monde yu muy dem waaw am na juróom-ñaari monde yu yàlla di dem ba ba monde boo xam ni mooy mujjëm te monde bu nekk am na durée te boo demee sharahu rih mi ci monde boobu nga xam ni mooy deuxième monde bi daa fa fekk ruuxu fekk fa jibril waaw fekk fa rawha yaa ilu fekk fa nuuru yaa ilu waaw te ñooñu ñëpp ay mindeef lañu waaw rawha yaa ilu moo àndaloon ak Zulqarnayni nuuru yaay ilu mooy chefu nawamis mooy ànd ak axtaab yi moo tax mu ni tanazalul malaikatu wa ruuhu fiha bi rabbihim min kulli amrin salaamun hiya atamatil faj yàlla nee na jàmm doo ngay am waaw guddi ga guddi jàmm la ba alfajri di jot muy fajar loolu mooy cadre bi mu siiwal waaye laata guddi laylatul xadr yàlla di ci jàngal nit ñi ngëneel ya am na lu jiitu guddi laylatul xadr parce que yàlla ñetti guddi la gën fonk ci guddi muy guddi laylatul xadr guddi laylatul nifsu shahban ak guddi gi nga xam ni nun moom la ñuy tudde guddi tamxarit te mu nekk ci shahru muharram ndax guddi googu la nitu yàlla yi di daje diwaanul xiraa di rëdd lii xew ci at mi ba at mii di ñëw waaw moo tax laata yonent bi di gane àdduna dafa am benn guddi yàlla woo woo ko mu ñëw moom yonent bi fekk ganeegul àdduna bi yonent bi ñëwee wuy ci boromam yàlla wax ko ni ko dama bëggoon tëral sa mission ni nga koy doxalee boo demee monde shahada muy àdduna ndax dafa am ay kàddu yu ma la bëgg yónnee boobu yonent bi gane séegul àdduna yonent bi ni ko yan kàddu la yàlla ni bismillaahi rahmaani rahiim alif lam mim alkitaabu laa rayba fiihi hudan lil muttaqiin yonent bi di ko déglu muy jàng di jàng saar yi di jàng saar yi ba mina jinnati wannaas moo tax benn mbokk ni ma alxuraan nin ko tërale pourtant wàccewul woon noonu ma ni ko waaye ni ko yonent bi dégg ca leer ya noonu la fexee ba jullit ñi di ko jànge noonu waaw xamoo laata yonent bi di gane àdduna jour guddi gi ko yàlla convoqué mu ñëw yàlla di ko wax ni am na kàddu yu mu bëgg wàcce ci moon monde shahada te muy alxuraan bi ko yonent bi ne yan kàddu bi yàlla di tëri sooratul baqara la commencé di ko toppante di ko toppante ba àgg sóoratul naas moo tax ni mu wàccee ci shahada yonent bi fexe ba kaamil bi buñ koy tëral ñu doore sooratul baqara jëm naas parce que noonu la ko yàlla jànge woon da fekk daf ko liggéey ci wàllu hikmaam ndax noonu la bëggoon nu organiser kaamil bi noonu waaye bëgguloon nu jiital iqra bi yàlla jàngee sooratul baqara ba sooratu naas yonent bi ni ko lii pour monde shahada la yàlla ni ko waaw yàlla ni ko dama bëgg léegi nga organiser ni ngay def ba boo ñëwee ca monde shahada baatu dem naa ca yàlla ci benn guddi mu nettali ma baqara ba naa bañ jaaxal nit ñi mais nu lu mel na benn genre benn genre film li ñuy tudde film des événements pour wane nu mbir yi xewe moo indi diwaanul xiraa ba jibril ñëw wax ko jàngal mënuma jàng loolu ko indi waaye bi ko yonent bi dégloo ba noppi yonent bi wóolu jibril jibril ñëw yonent bi ni ko comme yow yaay porte parole yàlla ci monde shahada ndax jibril mooy porte parole yàlla ci monde shahada di monde àdduna kon yow yaa war indi kàddu yi nga xam ni dégg naa yàlla mu jàng te muy sóoratul baqara ba sóoratul naas yàlla ni ko mais def leen attention ndax dama koy wàcce étape par étape du ma dajaleendoo yëpp rek wàcce ko benn guddi dama koy wàcce benn par benn waaw au fill des événements lu xew ci situation yi rek ma wàcce benn parce que li daan xew ci moment bi daan xewee ci la yàlla daan jël benn aaya wàcc ko moo tax benn hakim ni booy imam di jiite di jiite nit ñi ci yàlla nee nañu dara xew nga xutba te waxoo ko moto imam waaw parce que alquran bi mu daan wàcc dafa daan fekk li xew mu wax ci waaw moo tax imam day wax ci li xew ci jamono bi Jibril d'accordé yonent bi ni ko benn problème nekk na ci comme yàlla nee na dajalewul yépp wàccee ndoo ko kon ban lañu war a tànn pour bu wàcc wàcce alxuraan jotee ñu wàcc ko ci ban lañu war a tànn ci diggante baqara ba naas bi mu ko waxee ci la Mawlaay Cheikh Ahmadou Tijani dugg si parce que mooy xat mi yonent bi yonent bi du dem fu mu nekkul amul ñu bare ngi defe ni cheikh dafa def tarbiya rek ci yonent bi mu jox yonent bi du dem fu cheikh nekkul ndax mooy xat mi yàlla loolu la ñuy tudde xat mi mooy ki nga xam ni fu jëmm ja nekk yaa koy protégé ci biir lumiere bu mu mënta doon ak lumière ba lu mu rëy rëy te waxuma moom Mawlaaya Cheikh Ahmad Tijani am na lu toll noonu mais taalibe Mawlaaya Cheikh Ahmad Tijani di xutbul aqtaabul kabir heure bu yonent bi tegee tànkam ci àdduna ak fu mu mënta doon bu doon nelaw sax day jóg dégg ko jàkkaarloog moom soogay tëddaal bi du dugg ci ci monde shahada te raisonné wul ci nopp kon Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani ndegam mooy kilifa moom capable na lu mel ñëw bi mu ñëwee mu ni Jibril porte yàlla la ci monde shahada kon moom du tànn ban aaya la ñuy njëkk wàccee. waaye bàyyil ma nafar li yàlla jot a jàng ma tànn ci benn su fekkee yàlla d'accord na ci dana ko confirmer cheikh daal di jàng diggante baqara ba naas moo tax ma wax mbokk yi ni leen nee ñu bu mu amee juróom-ñaari at la mokkal alquran ma ne ah jàng na baqara banaas naas di te ganeegul àdduna waaw te ci ay minute la ko jàng ci kanamu yonent bi jibril la ngi taxaw mu jàng ba yàgg mu ne est-ce leen woon njëkk wàcce bii ndax ni ma ko gise mën na nekk aaya bu déggoog moom du shahada yonent bi ni ko ban aaya mu ni bismillahi rahmani rahim iqra bismi rabbika allazi xalaq xalaqa al min alaq iqra wa rabbuka al akramu allazi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam mu ni bu ci yàlla d'accord ñu bind ko sama jëmm moom Mawlaay Cheikh de Tijani fi mu taxaw mu changé doon benn étoffe li ñuy tuddee étoffe mooy mooy sër boo xam ni soie la bu verte xam nga nee naa bare na ku ni Jibril ba muy indi yonent bi la ñu bindoon iqara benn sër la tàllal mais boo ko ne sër ba nan la mel sax day am problème te du sër bu weex ni ko nit ñi foogee sër bu verte la waaw vert clair Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani changé nekk étoffe boo xam ni vert clair yàlla prouver ni ko d'accord na yàlla bind ci étoffe ba bismillahi rahmani rahim iqra bismi rabbika alladi xalaq xalaqa min alaq iqra wa rabbuka al ma lam yaalam waaw ah, daal def tomb te lii ma leen di nettali yonent bi ganeegul àdduna pour ngeen xam ko du lu xew bërki démb ba mu ñëwee diwaanul xiraa ba jibril ñëw bii ganeegul àdduna waaw ñu def rencontre bii bi yàlla bindee ci sër bi ba nopp te sër bi di jëmmi Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani bi changé ci hijaabu leer sër bi changé nekk benn genre ballon benn buul buul bi commencé di turné axtaab yi daal di ñëw ñeenti axtaab yi waaw xam nga lu tax axtaab yi ñëw ndax xutbul axtaabul kabir moom it mooy xat xatmiya Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani fu seex nekk ci wàllu leer daf ko war a nekk moo tax mu ñëw ànd ak ñetti axtaab yi ñu agsi waaw Jibril la ngi taxaw yonent bee ngi taxaw yàllaa ngi toog ci fauteuil bi bi di tourné axtaab yi escorté buul bi nekk ñeenti jëmm buul bi nekk seen digg buul bi bi muy tourné ci leeru yàlla di dox ci géej gi dafa doon zikr mi ngi naan bi izni laahotul bas bi izni nuuru saatil loolu bul bi doon wax waaw bi izni laahotul bas bi izni nuuru saatili buul bi nu bind sooratul iqra bismi rabbika alladi ba mu jeex axtaab yi ànd ak bi buy turne ñu topp ci fu buul bi dem ñu dem fa ànd ak moom ñoom it ñuy zikr naan bi isnil muhammadul habibi bi isni cheikh tijani waaw te loolu yëpp alquran la mi ngi mi ngi ci leeru yàlla waaw ñëwagul yonent bi ganeegul àdduna yaakaar bërki démb la léegi li xew ci guddi googu yëpp yàlla convoqué woon yonent bi ak ci kàddu yooyu yàlla dégg nga xam ne kàddu yu neex ci dégg-dégg la benn boule de lumière buy jàng bi isnillahutul bas bi isni nuuru saatiri nga xam ne ay kàddu yu rëy la ci wàllu leer ci ko ko xam waaw axtaab yi naan bi isnil muhammadul habibi bi isni cheikh tijani waaw bi di tourner ci guddi googu di tourner ci guddi googu ba yàlla d'accord ni bu ñuy wàcce ji alquran organisation bii am fii ñu taxaw muy moom yàlla mi ngi nekk yonent bee ngi taxaw jibril la ngi taxaw Mawlaay Cheikh Ahmadou Tijani mooy buul bi ñeenti axtaab yee ngi taxaw dana fexe ba préserver organisation boobu mu mu mu fësaat ci monde shahada ci la yàlla jékki saa ni guddi gi mooy guddi alqadr xam nga moo tax ñu des dégg dëgg dëgg xam-xam dañuy wax guddi lay laylatul xadr bi yonent bi ñëwagul woon dafa nekkoon ci at mi di tourné waaw mi ngi woon ci at mi waaye tourné wul woon nag benn guddi la boo xam ni yàllaa ko doon ni mooy guddi alxadr guddi alxadr baatu alxadr boobu xaqiiqa la alxadr bi mi ngi tekki guddi goo xam ni lu bare dana ci xew ci wàllu xayb ba am lu ci génn waa ahlu shahada jëfandikoo ko te mu doon yiw mooy loo xam ni ci xaybu cérémonie dafay am guddi goo xam ni waa xaybu dañuy xewle bu ñu xewlee li cay jóge di ay fuyu daat dana wàcc ba waa ahlu shahada muy waa àdduna jëfandikoo guddi gu mel noonu la yàlla di tudde alqadr xaqiqa la mu ni guddi gi mooy alqadr nu bàyyi mu paase ba yonent bi dem ba gane àdduna bi yonent bi ganee àdduna ba alxuraan war a wàcc yonent bi dafa daan faral di tëdd ca jabal alqiraa te li tax mu cay tëdd nit ñi ñoo ko daan gis ci kaw montagne bi mais kooku saaluwal yu yàlla yil la ndax fa la ñuy daje chaque guddi tam xarit chaque guddi tam xarit vingt ba six heures bi matin fa la ñuy daje di wax liy xew ci at mi yonent bi ñëw tëdd bi mu ñëwee tëdd comme ni ngeen ko xamee dund na ci shahada wane na ni nit la pour faire comprendre nit ñi luy mission wam ba guddi rek mu tëdd bi mu tëddee buul bi nekkoon asamaan di tourné buulu etof yàlla ni buul bi tey la war a wàcc ñu tàllal ko ci kanamu yonent bi mu liir bind yu rafet yi bi buul bi di wàcc axtaab yi ña nga ñoom ñeent ñoo ko gàddu ndax ñooy xat mi am jibril topp ci seen ginnaaw ñuy ñëw keroog bi ñu ñëwee ba tiim diwaanul xiraa taxaw axtaab yi dañu ni jibril ñun bu nu éclater boule bi rek dugg ci shahada te ñun ganee gunu àdduna ci xay bu la ni kon jëlal sa mission éclater boule bi tàllal étoffe bi axtaab yi wàññeeku jibril jël boule bi daal di koy tàllal ca la yonent bi lii gis baat ya bismillahi rahmani rahim iqra bismi rabbika allazi xalaq xalaqa min alaq iqra wa rabbuka al akramu ma lam yaalam ñay nettali ñëpp cala la ñuy nettalee bi ñu ni ko jàngal mu ni mënuma jàng ma ni kooku daal pour waa shahada la ndax jàng lu ëpp te te gu ñu woon foofu mais il fallait mu jouer genre film bu mel noonu pour nit ñi comprendre nan la ñuy jaamoo seen borom ndax dimension moom dafa élevé de telle sorte nit ñi mënuñu ko fekk fi mu nekk kon moom yonent bi muy obligé dellu si fekk leen fi ñu nekk ñoom moo tax nag guddi googu la yàlla signifié ne mooy guddi al alqadr bi muy wax ci cadre officieuse bi muy bi ñenn ñi te comprendre yàlla wax ni bismillahi rahmaani rahim bismillahi ñu commencé ci turu yàlla mi allahu waaw wax naa leen ci xaqiqa cheikhu tijaani la waaw arrahmaani moom mi nga xam ni moo jël yërmande àdduna yépp sauf que yonent bi ba tax mu ni ko wa ma atalnaaka ila rahmatan lil alamin arrahimi moom mi nga xam ni moo jël ngërëmal ëllëg yépp sauf ko Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani ba mu ni ko taaha waaw ah. turam la ah. turam la te nee nañu taaha turu yonent bi turu cheikh la ah. xam nga lu lay jàngal ni turam la parce que cheikh firi benn aaya bu nekk foofu ci biir saar bi arrahmanu ala al arsi istawa ah arrahmanu arsi istawa ni yàlla yamook arash am na ñu ni wax ko bidaa la ma ni déedéet du bidaa kay xanaa da nga naan xamuloo yàlla ni mu yemook aras mooy fa mu took ca aras di changer cinquante mille fois par seconde couleur bu ñëw beneen dellu si waaw arrahmanu ala al moo tax bi yàlla ne inna anzalnaahu fi laylatil qadr wàcce nañ ko wàcce nañ ko moom alquran ci guddi alqadr lu tax yàlla ni wàcce nañ ko ñun ñun ñoo ko wàcce xam nga am na ñu ni yàlla bu ne ñun rek dafa fekk mu bëgg wax moom ak malaaka ya boole seen doole nu ñun ma ni déedéet yàlla weddi na leen lim leen weddee mooy nee na inna allaha naka ñun yàlla wa malaikatahu ak malaaka yële kon def na séparation waaw yusalluuna ala nabii ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima bi muy digle nit ñi pour ñu jàng salaatul fatiha ndax moom la jàng moo tax ñun yàlla ñi koy dégg ci shahada ñoo ni ngàndaayam la ma ni déedéet yàlla dafa am ay mbokk yoo xam ni daf leen considéré comme boppam ñooñu lu ñu wax yàlla ni wamaa yantiqu anil hawa in huwa ila wahyun yuha lu ñu jëf yàlla ni moo leen ko jëfloo fu ñu joxeñ rekk yàlla daal di dagg fu ñu joxeñ rek yàlla daal di dagg moo tax mu ni wàcce nañ ko ñun ñan ñoo ko wàcc jëmmi yàlla mi joxe décision bind iqra ci étoffe bi jëmmi Mawlaay Cheikh Ahmadou Tijani mi soppeeku doon étoffe bi jëmmi Jibril mi nga xam ni moo nekkoon ci ginnaaw jëmmi axtaab yi escorté woon ballon rond bi balaata muy explosé ci monde shahada yàlla ni wàcce nañ ko ñun inna anzalnaahu fi laylatil qadr ci guddi al qadr waaw mu ni wa maa adraaka maa laylatul kan moo la mën a wax lan mooy guddi al qadr daf ko tëb du cadre officiel cadre officieuse la ah. guddi alqadr mooy guddi gi nga xam ni yàlla daje woon nag yonent bi woo ko te ganeegul àdduna Mawlaay Cheikh Ahmadou Tijani nekk fa songé doon étof axtaab yi nekk fa ñuy zikr li ñuy zikr Jibril nekk fa loolu mooy guddi alqadr moo tax yàlla tëb ni eh, wa ma adraka ma laylatul qadr ku la mën a wax luy guddi alqadr tëb ka rek wax la ngëneel ga laylatul qadri xayrun min alfi shahrin yàlla nee na moo gën ne weer moo ko signifié ni moo gën junney weer guddi googu moo gën junney weer ama lu tamu ni guddi googu gën junne weer daf ko tënk ci biir benn xaqiiqa xaqiiqa gi ko yàlla tënke mooy dafa delloo nitu shahada yi muy nitu àdduna li nga xam ni mën nañ ko am ci wàllu yiw ci guddi ga ndax diggante guddi gi nga xam ni yonent bi rencontré woon na yàlla Jibril nekk fa axtaab yi nekk fa Mawlaay Cheikh Ahmadou Tijani nekk fa diggante guddi googu ak diggante guddi gi yonent bi ganee àdduna junney weer moo tax yàlla bi mu signifié guddi googu mu ni guddi googu moo gën junney weer junney weer yi passé ci ci calculu shahada moom la yàlla jël def ko mu doon gëneelu guddi googu mooy guddi rencontre laylatul xadri xayrun min alfi shahri boo ci jullee ñaari rakka mu gën junney weer yàlla ni tanazalul malaaikatu wa ruuhu fiiha bi izni rabbihim min kulli amrin malaayika yi dañuy wàcc ànd ak ruuxu ma wax leen malaayika yi ak ruuxu bu ñu wàccee nan la ñuy mel parce que ñu yàlla yóbbu ñëpp guddi googu dañuy jàkkaarloog ñuy wàcc ba dégg ma naan kuy dem ca kaw daa xam bis bu ñuy war xam bis bu ñuy wari ndax da ngay xam guddi laylatul qadr waaw danga koy xam ruuxu moomu benn malaayika la boo xam ni yàlla moom la jël mu def malaayika bi ëpp ci malaayika yi ruuxu moo ëpp ci malaayika yi ginnaaw moom malaaka Malik bi garde safara moo ca topp ginnaaw moom malaaka mawti bi jël ruux yi moo ca topp kon jibril ci ñu mujj la ba ah ruuxu bu ferenkulaayee yowmal qiyam ñëpp ci biir ay tànkam lañu ni te yowmal qiyam bu ñu taxawee malaaka yi nekk ci asamaan bu njëkk bi bu ñu dajee ñoom taxaw nii rek kenn dootul amati place ndax seen barewaay malaka yu nekk ci asamaan bu njëkk bi waxuma ñaareel de ñu njëkk yi rek bu ñu taxawee kenn dootul amati place yàlla indi ba malaika yu nekk ci juróom-ñaareelu asamaan bi ñu taxaw soixante-dix mille certes mu indi nit ñi ñu ne vingt-trois mu wërale leen indi jinne yi jinne yi ëpp nit ñu téeméeri junne indi rab yi indi yëpp ba noppi woo ruuxu ruuxu génn ñëw feranku laay ñëpp nekk ci diggu tànk moo tax bi yàlla bi yàlla gisee ruuxu ak ngàndaayam yàlla daf mujj naw sax naw bee tax mu ni ma yaqumu ruuxu wal malaikatu saffan laa yatakallamuun ila man adina lahu rahmaanu wa qaala sawaab yàlla nee na gis nga ruuxu parce que dafa dafa montrer grandeur am xoola ruux ni mu toll bu taxawee moom malaaka yi kenn di wax lu dul man yàlla ku ma jox kàddu mu wax mel ni dañ ni ko lu tax mu ni zalika yawmul haqu fa man shaa taxada ila rabbihi maa bisu dëgg la kenn du ci wax caaxaan moo tax ruuxu moomu la yàlla di jël nga xam ni ñaari ñaari ñaari benn bés lay génn ak benn guddi ba ko yàlla bindee ba léegi ci benn xunt la nekk guddi lay laylatul xadr lay génn su guddi laylatul xadr weesoo mu dellu ca xunt ma bu génnaatee guddi laylatul xadr déwén la wala bisub yowmal xiyaam ca bëccëg sa waaw bu ruuxu dee bëtt asamaan bi ñëw ci guddi gi day ànd ak cent vingt quatre mille malaayika vingt quatre mille malaayika yooyu ñoom ñëpp boo leen xoolee dañuy mel ni ay jëmm yu sol jàllaabe yu weex jibril la ngi ci diggu cent vingt quatre mille malaayika yi gàddu benn drapo boo xam ni lépp lumière la drapeau bu weex drapeau bi ñu ngi ci bind laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullah ruuxu jiitu ci kanam di ñëw di ñëw di ñëw di ñëw ba Médine mu sukk ci xabru yonent bi ni Jibril jox ma drapeau bi Jibril jox ko mu samp ko ci xabru waaw ñu commencé di zikr tur yàlla bu ne daan ko zikr ci asmaullahil husna yi allahu sabur lu ne daan ko zikr ba am na tur yu ñuy zikr sax nekkul ci asmaullahil husna yi waaw muy ay sataaru ay am yaalu façon tur yoo xam ne nekkul ñu koy jàng di ko jàng di ko jàng ba heure fajar di jot nu àndandoo ñoom ñëpp jàng salaatul fatiha dem buddi drapeau bi ci xabru yonent bi joxaat ko jibril ñu àndandoo di dem waaw te ruuxu mooy buddi drapeau bi jox ko jibril moo tax ku leen gis ñoom ñaar sax doo fi nekk naan ruuxooy jibril waaw ku leen gisul ku leen gisul de na ni nee nañu ruuxooy jibril leen gis kay du werante ndax ñoom ñaar a ngi tax mu buddi drapeau bi ci xabru yonent bi delloo delloo ko jibril alayhi salaam ñu àndandoo dellu di bëtaat asamaan lin fi zikr ci guddi gi yëpp nag yiw lay doon boo xam ni dañ koy bàyyi fii ci moon bi shahada ñi doon jaamu yàlla ci guddi gi ñoo koy jëfandikoo moo tax yàlla ni tanazalul malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salaamun hiya atamatil al fajr waaw yàlla nee na jàmm rek fi nekk ba fajar di jot waaye xam nga ban lan mooy fajaru yàlla quatre heures du matin te ñu bari xamuñu loolu ruuhu ak jibril quatre heures zéro la ñuy ñibbi toog tooguñu fi ba nii def asalaatu xayrun min an nawm kookoy sunu fajar ñun fajaru yàlla quatre heures zéro la waaw quatre mooy fajaru yàlla moo tax nu ni yàlla guddi gu nekk dana tàllal loxoom ni ana ana ñi soxla ma jox leen dangay dégg sax borom hadis yi dañ koy jàngale ana ñuy ñaan ma may leen li ñuy ñaan ana ñu am ay xaajo ma fajal leen ko ana ñu feebar ma wéral leen ñu bare naan ban heure la boo jaamoo yàlla guddi ma ni quatre heures zéro lay wax loolu tëj ay loxoom dencaat soo bëggee bokk ci loolu quatre heures zéro ngay julli ñaan ñaan sa soxla waaw ah. loolu tax mag ñi waxuma la teel yow waaye amuñu woon sax nelaw amuñu woon nelaw parce am na jamono yoo xam ni ñoom ñoom du leen raw waaw waaye diggante boobu nga xam ni moom la yàlla jël guddi gu toll noonu di guddi lay laylatul qadr yàlla def ci it ay secret yu bari ci biir guddi ga ndax seen symbole guddi ga moo tollu noonu boo demee ci mbokk yi sax da ngay dégg nu ne am na heure boo xam ne bu jotee géej gi day neex ma ni waaw xam nga lu tax ñu bari duñ ci rendre compte parce que neexitu géej gaag yëpp la cay xew motul diiru trois minutes ah zéro heure deux la ba zéro heure cinq ah minuit deux ba minuit cinq garab guy sax da nga koy dégg xale bu doon sax bañ mën nga ko dégg géej gi dañuy saf sàpp ak suukar mais diggante trois minutes lépp melaat ni meloon am na yit nu basé ci am na ñu basé wu ci li ñuy faral di wax ñu ni undu xam na bis bi ma ni dëgg la waaw waaw muus day woor bisu laylatul xadr daf koy woor waaye ni muy woore la ñu bari xamul parce que ñu bari dañu yaakaar muus ni muy woore ak sunu koor moo yam déedéet muus deux heures de temps lay woor waaw ci ci ci bisu laylatul xadr ñaari waxtu lay woor bu xëyee sept ba huit heures lay woor dog huit heures neuf heures neuf heures dix heures dix heures onze heures onze heures midi mu wooraat kooram jeex ñaari waxtu yooyu la du lekk waaw moo tax day woor ci bis ba mais deux heures de temps lay woor te deux heures de temps yu nu séparé la ah de temps yu nu séparé la sept heures huit heures la lay xëy woor ci bis boo xam ne bisu laylatul xadr la ah huit heures jot nga jox ko lekk mu lekk huit heures neuf heures neuf heures dix heures dix heures onze heures onze heures mu woora midi passé wari na ah deux heures de temps lay woor xam na bis ba mais deux heures de temps la ci woor ñu bare nag li leen di tromper mooy bu ñu gisee muus ma di lekk rek nu ne ah du tey ndax dafa war a woor ndax ñoom dañu jàpp ni muus ma day xëdd balaa muy lekkati ndog ma ni déet muus mi ci rab yi la ba nun ci ci ci bani aadam lañu ñu yamuñu ni ñu yàlla di sant li yàlla sant muus ci cëram boobu mooy mu wër deux heures de temps mel ni war na waxu ba la bés ba mais weer ba waaw mu sant la nga xëy ca fajar ba ba ngoon di jot diggante boobu moo ciy trompé ñu bari te diggante boobu di guddi lay laylatul xadr nga xam ni yàlla moom lay symboliser sahru ramadan weeru koor guddi laylatul xadr mooy symbole am parce que buñ ko gisee rek xam nañ ñu ngi ci biir weer bi buñ ko gisul rek dafa mel ni weer bi am na loo xam ni manqué na ndax kenn mënul jënde kenn mënul jënde bi su yi bisu yi ak junney weer kenn mënu ko ko jënd te ñaari rakka boo ko ci jullee mu mel ni mu mel ni jaamu nga yàlla junney weer te Mawlaay Cheikh Ahmadu Tijaani ni mu tënkee guddi alxadr di guddi laylatul xadr mooy même ku ci àgg ba xam ni guddi gii la sax bu ko neexee julli ñaari rakkaawam jàng salaatul fatiha junne jàng jawharatul kamal 65 bi mu tëddi kenn dootu ko raw kenn dootu ko raw parce que kenn mënul jàng ci guddi gu lu ëpp loolu te ruuxu buy tëj buy tëj jàngin bi fajar loolu lay jàng junne salaatul fatiha 65 jawharatul kamal te malaayika yi mu àndaloon muy 124 mille yi ñoom ñëpp dañuy noppi ba mu des mook jibril ñoom dong ñoo am droit jàng jawharatul kamal ak salaatul fatiha moo te cheikh ni boo xamee sirru boobu boo ko jàngee dafa mel na jeexal nga guddi ko te focaliser ci guddi gi sax xëy na pas-pas la ak yitte bi yonent bi amoon ba montre guddi gu mel noonu ci monde shahada ñu mën ko comprendre mais xanaa xamuloo ci taalibe Mawlaay Cheikh Ahmadou Tijani yi am na ñoo xam ne seen guddi yëpp guddi lay laylatul qadr waaw seen guddi yëpp buñ ci jullee ñaari rakka xayrun min alfi shahri cheikh jël daraja yooyu def ko ci tarixa bi am na ñoo xam ni ñi ñu nangul seen wérd bu ñu jullee ñaari rakka ci guddi guñ ko jullee xayrun min alfi shahri waaw moo gën junney weer te ñaari rakka li ñuy julli te ay taalibe Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani am na ñoo xam ni ci tarixa bi boo leen gisee bisu altine ziyaare leen wala bisu aljuma ziyaare leen kuy lakkati ëllëg it yow doo ci bokk waaw te ci tarixa bi la ñu nekk te nangu bi leen Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani nangul seen course moo leen jox pouvoir bu mel noonu moo tax mag ñi ni boo boo gisee xutbul axtaab boo xëyee gis xutbul axtaab mu bég ci yow boo fàtte woon laazim it laazim waaw xanaa laazimaat nii rek pour pour pour pour farata waaw yo jëmmi yooyu ci tarixa bi cheikh dafa ni kenn amul droit nuyu leen te amuloo njàpp parce que nee na seen yaram ni ngay sellalee jawharatul kamal noonu nga war a sellalee seen yaram kenn du leen jox loxo te amul njàpp seetal loolu moo tax diggante boobu yàlla jël guddi alqadr wàcc ci alquran indi ko ba alquran mot muy sóoratul baqara ba sóoratu naas ngëneel yi ñuy nettali ci biir alquran yëpp moo taxoon yonent bi bu daan jug yore kaamil bi di ko jàng lim ciy jàpp mooy kaamil bi du benn lettre rek bu mu war di liir mais benn source bu muy naanee la ak benn dimension boo xam ni war na ko am selon alxuraan ni muy jàngale ndax alxuraan daf lay jàngal yonent yi nañu meloon nettali leen seen xisa nettali bi du pour rek nga dégg ni yonent diw moom la nàngam daloon déedéet mooy koo xam ni def na ci erreur nga moytu erreur ba koo xam ni am na ci ngëneel nga topp ngëneel la yàlla wan la nit ñi dès l'instant yaa ngeeg moom dès l'instant yaa ngeeg moom mu nangul la amatul loo xam ni war nga ko ragal ci monde du saxaar mooy li mu wax yonent bi fa in tawalaw fa qul xasbiya allahu laa ilaha illa huwa wa huwa rabbul arshil azim nee na ko la wan buñ ginnaaw kay ne leen doy loo naa yàlla laa ilaha huwa dara nekku fi lu dul ma tawakkaltu ma wéeru ci ma huwa naka moom rabbul arshil azim mooy mooy borom aras bu màgg te wax na dëgg mooy borom arash bu màgg bi te wax na dëgg parce que ñi ñi ñi tànn ñi ñi tànn yàlla di leen indi ci monde shahada pour ñu koy leeral kenn ku ci ne ci jëmmi nitu yàlla yooyu kenn ku nekk ci jëmmu nitu yàlla yooyu ruuxam ci wàllu zikrullaahi am na accès ci biir basaatul jala ndax moom la leen yàlla di xàmme ruuxu wëli yi mu yi mu fonk kenn ku ci nekk sa couleuru ruuxu ak couleuru leeru basaatul jalaal ñoo nuroo moo dama wax leen ni dara dàqul nga gis wëli buy dallu du ma ni nelaw parce que Cheikh Alhaji Malick mësul nangu baat boobu waaw te imaamul Busayri ci boppam sax nee na wëli yu piir du nelaw fa maa li aynayka in qulta akfufu xamata wa maa li qalbika in qulta astaqfi yahimi nam doon taggee yonent bi ni yonent bi mel nag doon la wali mel dañuy gëmm te seen xol a ngi xoole moo tax dès l'instant nga gis leen ñoom ñu teg seen bopp mel ni kuy dallu soo amee basiira dëgg-dëgg muy gis-gis da ngay gis ñu tànk leer ci basaatul jalaal mu mel ni ndox ndox mu taw ñu koy sotti seen bopp néeg bi ñu tëdd ci njaganaay bi ñu teg seen bopp da gis boo amee basiira néeg bi day mel ni luy lap ndax leer yi nin ciy nekkee wëli yëpp bu ñuy nelaw noonu lañ leen di sottilee seen bopp leer bu dee xut bu yi bu ñuy nelaw dañuy tibb leer mais leer googu safara la soo ko xoolee nii da naan safara suy tàkk la dañ koy sotti seen bopp nga gis safara si nii di tasaaroo ci biir néeg bi mel ni luy luy jafal néeg bi te leer la de du safara ah. mais cheikh nee na day laqe wax na dëgg ah. xanaa xamuloo Mawlaay Cheikh Ahmadu Tijaani loo tax bi bi laata muy làqu ci mondu xaybu nu koy tudd nun génn àdduna mu wax ni bu kenn denc kenn ci sama wet ndax ku ngeen denc ci sama wet safara la jëm wax na dëgg ah. moo tax nu defal ko cent mètres carrés kenn denciwul kenn ci wet parce que ñoom ñoom xutbu yu mag yi bu ñu tëddee safara siy jóge ci basaatul jalaal di wàcc ci ñoom dafay lóoral fi nu tëdd soo tëddee seen wet rek safara si daf lay la waaw moo tax Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani dig digle lu mel noonu te loolu mu digle moom Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani daf ko teg ci benn cadre boo xam ni cadre leer la cadre leer bi mooy nit ki bu demee ba déggoo kurusam te loolu mooy li jafe nit ki bu demee ba déggoo kurusam heure bu soxlootee Mawlaaye Cheikh Ahmada Tijani woo ko ngan mu ganesi ko bu déggoo kurusam xam nga déggoog sa kurus mooy lan xaqiiqa la mooy dem ba boo tardé wér di soo tegee sa kurus mu wér dal la moom waaw boo demee ba ba sa ba sa zikr bu tardé boo tegee sa kurus kurus gi zikr euh, defal la zikr bi waaw mooy mooy day dem ba per yi dootoo leen jàppee rek ay simple per mais dañuy soppeeku nekk ay boule de lumière ànd ak yow parce que dañuy dugg ak yow ba ci biir mystère u xay bi mu yi ñu xamul soo demee ba toll foofu ak moom nag ci la Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani di nangu heure boo ko soxlootee rek mu ni lalal li ngay lal ma gane si la ah. boo ko soxlootee mu ni mu ni lalal mu ni lalal li lal ma gane si naa ko waa xadara bi jamono ji passé ma wax leen ni am na ay seyxu tarbiya te ay nitu yàlla lañu ay wëli yu mag pour ku defe ni rek ay seyxu tarbiya la ñu nii déedéet ay wëli yu yàlla yu mag lañu mësunu gane si àdduna ndax yàlla bind na ay wëli yoo xam ne mësunu juddu ci monde sahara ni mu bindee cent vingt quatre mille yonent jël ñenn ñi bàyyi leen ñeenteelu asamaan yónni ci trois cent treize noonu la bindee ay wëli yoo xam ne mësunu gane si àdduna xam nga yàlla bind na téeméeri junne yonent ak ñaar fukki junne ak ñeent ñetti téeméeri fukk ak ñett la yónni te ñeneen ñi ay yonent lañu ay gradu yonent lañu am mais boo demee ñeenteelu asamaan da ngay gis rek mi ngi leen parqué fenn lalal leen benn sijaada leer wërale leen ak lu mel ni benn sàkket boo xam ni sàkketu leer la nu toog di jàng ismulaahil azam bi ah? nu toog di jàng ismulaahil azam bi loolooy seen dund ismulaahil anzam bi rek la ñuy jàng yaayu yenent yàlla insa bii di sayyidatuna Mariam soo demee bokk mi ngi ci ñoom toog di jàng ismulaahil anzam bi bari na wëlu yàlla yuy jox loxo yaayu yenent yàlla insa parce que dañu dajeeg moom ñeenteelu asamaan te te yaayu yonent la di ah, te mi ngi woon fii ci monde shahada mais mais ma nga ca ñoom di jàng pas-pasam comme pas-pasu góor waaw muy Mariam ku fay wëliw bu mag booy dugg si di tijji bunt bi rek muy jóg ni la jàpp loxo nuyu nee na dafa sopp nitu leer kenn mënu ci dara wëli yooyu yàlla bind mësuñu gane monde shahada ñu nekk ay seyxu tarbiya lii seen liggéey mooy bu ñu xëyee ci asamaan yi ay malaaka la ñuy dajale di leen jàngal ay leer oo ci fekk mi ngi parqué lu tolloog vingt malaayika ñii parqué trente ñii parqué cinquante di leen defal tarbiya ci wàllu leer di leen ko jàngal diggante boobu ñu leen koy jàngale benn bés wali yooyu dem ba seen biir ñu waxtaan ni ci wàllu tarbiya est-ce nit am na seyxu tarbiya bu créé leer goo xam ni nit ki mën na ko utiliser léegi rek am audience ak yàlla directement maanaam yàlla recevoir ko directement ñu xalaat xalaat gëstu gëstu ni loolu ñoom gisuñu ko waaye keroog bi nu posé question bi ca xadaratul ilaahiya Mawlaaya Cheikh Ahmadu Tijaani bi mu déggee ñu wax dafa muñ bi mu muñee bi ñu terminé xadaratul ilahiyya bi ba mu jeex mu ni ma Seydi Mouhamed El Cheikh ma ni ko labbayka yaa Seydi mu ni wax leen wax leen tarbiya boobu ku ko créé ah ma jug ni leen ki créé tarbiya bi mooy Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani yéen ci monde xay bu ngeen nekk mën leen gis nga monde shahada Cheikh créé na géewu wasifa géewu wasifa da ngay lal malaan rek jàng tuuti yonent bi ñëw Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani ñëw axtaab yi ñëw yàlla nga fa. wali yooyu ba ñu jógee xadara ba dañu mujj daw ca barzaqul maktoum barzaqul maktoum di di aljana cheikh bi mu denc barzaq pour ay taalibe ñu dem fa fekk fa Seydi Hachim ñu ni ko dañu bëgg jël wérd te bokk ci diwaan ngoon keroog bi ma cheikh di yabal ñuy dem foofu pour ànd ak ñoom wasifa fekk na aljuma ci ngoon la ñi ngi def xadaratul jumaa ca Medina cheikh ñu dem def ak ñoom géewu wasifa dellu si fekk xadara baa ngi ci allah pare gu waaw mais seyxu tarbiya yooyu trouvé nañu leen doon seet waaw xam nga damay wax ni gis nga li Cheikh Ibrahima Diagne di wax nii balaa nuy door dafa baax rek waaw mbaax bi mooy li muy nettali ci yenn cadre yi yenn dimension bi te tarixa bi dépassé loolu xam nga toujours boo làkkook say mbokk ci benn place rek di def lenn li dañuy dem ba foog ni sax xëy na rek gaa yi bëgg ni réyal sëriñ walla réyal kenn ki yàlla may ni yàlla jox ba yu ñu fi wax ak yu ñu fiy def yëpp ay preuve à l'appui la dafa leer nañ waaw yu yu leer nañ la dara lëndëmu ci te mbokk yu toog ci tànt bi kay ñoo koy sedd mbokk yi toog ci tànt bi ñoo koy seede waaw pour leeral ko ñëpp dégg ku dem am loo yóbbaale parce que damay bañ rek Cheikh Ibrahima di wax nu ni moom de moo jël micro bi di wax fekk na gaa yi waxuñu bi ma sëriñ Xaasim Jaañ mi waxee ca Ndar sëriñ Xaasim ngi nii toog mu ni ma dañu bëgg def conférence bi le 12 ak le 13 fekk daf ma koy wax toujours pour bu ci dara naree xew ma wax ko mu changé ma ni ko comme jàpp nga ko rek baax na bu ñu jógee ñaan ci ma ni ko waaye la 11 dañu wax ca xadara ba ni dafa war a taw le 11 bii passé ma ni ko est-ce war na taw mu ne ah, bu tawee da gaa yi dem tool ba bàyyi fa conférence ma ni ko te baykat yi dañu war a bay kon lanu fexe anticiper taw mi taw moomu lanu lanu anticiper mu mu mu taw ca jamono yële paase mooy taw mu njëkk ma mais tawu la onze la waaw déedéet euh, dama bëgg sax mu mu leer tuuti pareegu ma waaw ndax boo waxee rek ñu ne ak ah, kokkay ku nekk mën na ni taw ma la anticiper waaw waaw hmm. parce que dégg naa ko ni problème mu taw rek ñu delloo ko ci yàlla moo tax paree guma dama bëgg dama bëgg mu leer ndax bu nu waxee loolu sax mooy waxuñu dara dañu wax nii rek euh, ku ne mën na nii ah loolu mën na nekk mënul dama bëgg mu leer ndax dama ci def ak moom ay wax bi ñu jógee yàlla dogal mu taw ca samedi boobu ci guddi nga xam ni keroog ñu ngi woon ci daayira doonu pare rek taw ma sëb waaw mu mu waroon nekk taw la onze Cheikh Jibril Diagne mii ñu toog ci ndar di waxtaan kër Cheikh Abdoulaye Seck ajjuma mu ni ma ñun ji nañu ma ni ko kon gars yi ñu ngi ji mu ni ma waaw parce que nawet bi tàmbali na bu yàgg ma ni ko xaasim de moom xam naa bëggagul mu taw léegi ndax day bañ conférence bi yàqu waaye ñaata la ji di nekk ci suuf du yàqu mu ni ma ji daal mën na dem ba am fukki fan mu ni ma ji moom bu amee fukki fan ci suuf moom ah bu tawul mën na yàqu ma calculer samedi bi mu tawoon ni samedi ba gars yi di dimanche muy dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche lundi mardi mercredi tey kon war na am fukki fan kon tey war na taw waaw wax naa ko sëriñ Xaasim ci suba ma ni ko dama calculer fukki fan ni war na taw balaa jiwu baykat yi di yàqu ci suba bi mu commencé wis mais Rosso dafa taw ba tooy Maxtar Thioub wax na ko léegi bi mu commencé di wisal wis wisal dama jël sama portable téléphone Serigne Khassim ni ko dafa war a taw ba 13h ci bëccëg ndax mu taw wala mu arrêté mu ni ma mu arrêté moo gën ma ni ko kon arrêté la mi toog waaw waaw waaw xam nga xam nga bu ngeen gisee waaw xam nga bu ngeen gisee ma wax yu mel nii xam nga bu ngeen gisee ma wax yu mel nii di ko leeral mooy dafa am lu may invité li may invité mooy rek. ku mel ni Cheikh Ibrahima Diagne taxaw wax yenn daraja yi nga ne ah xanaa da ko bëgg yëkkati rek wala ba jaar ci yàqu ma bëgg leen wax ni gis nga ñu muy wax Cheikh Ibrahima mii di ko wax du lu benn nit rek di formé mais du lu toog di ko wax sëriñ Xaasim Jaañ ni toog ah laaj leen ko ba xam ci suba woowuma ko ni ko taw mi ndax mu continuer ba 13h wala mu arrêté mu ni mën a arrêté mu arrêté jeex na ah, bu dul loolu kenn du tal bi baas bay conférence ah te li ma leen bëgg wax mooy gis nga yooyu yooyu dafa dul sax dara pour wax leen kon waaw te te kuy bàkk pour wilaay yi ragal naa ni soxlawul nga koy wut ci suuf demal wut ko ca asamaan moo gën parce que defe naa ni li tax yàlla annulé tawam du lu tuuti de waaw yàlla bu mu tawati mu ni waa tawatoo <laughs> woo leen benn sëriñ ni ko na ko wax waaw maa ngi koy tooñ sax maa ngi koy tooñ sax naan kaa xam naa baykat yi da ñoom fu ñu toll ñu ngi ñaan taw waaw waaw ma ni ko baykat yi fu ñu toll ñu ñu ñu ngi ñaan taw pour wax leen ni yii du yu ñuy du yu ñuy toog ba yàgg rek ñoom seen dënn tàng ñu jóg di ko wax day yoo xam ni dañ ko wax ak ñoom ci moment bi mu xewee waaw kon bala ngay wax yenn yi wala nga yëkkati nit ki wala mais da bàyyi mu prouvé parce que fii lépp lu ñuy prouvé moo fi amul lu nit ki di jañ nit ki walla di ko ko tagge lu nit di prouver moo fi ne waaw waaye sëriñ bu tànt jotaayam yëpp taw mi jóg la muy njëkk wax indi leen ma baas ma sàng waaye sëriñ bi kay génn ni na taw mi arrêté mu taxaw sëriñ bi génn wax ko nitu yàllaay génn wax waaw te yooyu yëpp Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani ci barke jëmmam ak ci leeram cër yooyu ci moom lañ ko jëlee waaw parce que Cheikh nee na vrai taalibeem dëgg-dëgg lu mu mënul régler ci benn salaatul fatiha dootu ko régler abadan te wax na dëgg la waaw nee na vrai taalibeem dëgg-dëgg lu mu mënul régler lu mu mënul régler ci benn peru salaatul fatiha du ko régler abadan xaqiiqa nag dafa am ak shahada shahada la nit ki di dégg comprendre xaqiqa nag nit ki du ko mën a nangu lu dul mu gis fekk yooyu gën tuuti yooyu gën tuuti te toujours day am ay seede yoo xam ne dañuy taxaw di ko wax parce que am na lu am na lu shariatu muhammadiye d'accordul mais xaqiqa daf ci d'accord ah. sharia boo waxee rek am na yum am na yum dul comprendre mais xaqiqa lépp lay comprendre parce que nitu xaqiiqa dëgg-dëgg yàlla daf koy ëmb ak leer goo xam ni kenn ku nekk kuy dox jëmmam yàllaa ngi jël liy avenir am liy organisation dundam at yi mu war a dund def ko ci kanamam mu jàkkaarloo moom waaw guddi ak bëccëg guddi ak bëccëg dara du ci réer guddi ak bëccëg day jàkkaarloo moom te yooyu organisation Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani la benn bu ca ne mu jël cër ba jox ko ki nga xam ni moo ko mérité pour mu def ko jeex la parce que du ci dara ah taalibe Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani dëgg amul lu mu mënul mën na dugal nit aljana ci coobareem mën na fekk nit ku waroon génn àdduna tey mu yokkal la ay ati at waaw te loolu sharia nanguwu ko waaw sharia nee na mënul am ku sa heure jot nga dem mëni déedéet ku sa heure jot gisoo ku la yokkal nga dem waaw parce que simple dossier la kat ah. benn dossier bu ndaw la benn dossier ah. benn dossier bu ndaw la xamante ah. xamante naag benn mbokk góor gu baax la ma gis ko mu nekk ci ay projet te narul woon terminer projet yi ndax dafa naroon génn àdduna ci àdduna baxoon ko gis ko mu dese benn mois ak sept jours mois bi passé mu ñëw di ma nettali li mu mébat te mi ngi ci biir sept jours yi kat ah. l'an 2001 la woon lii ma leen di wax 2001 ah. parce que man bi may découvrir les vrais mystères yi nekk ci xaybu c'était en 1997 boobu maa ngi amoon 14 ans ah. 1997 la boobu maa ngi amoon 14 ans boobu am na ci benn garab gu ma daan faral di wér di ci ca Ndar ngi nekk ca àllu soor jaaj waa xadara bi xam nañu benn bëccëg laa dem fekk fa Mawlaayu Cheikh Ahmad Tijani mu taxaw Cheikh Alhaaji Umar taxaw fekk gisuma leen woon dama ñëwoon di wér di ba yàgg rek wan ko ginnaaw di dem rek keroog la ma njëkk wax ci shahada ma dégg mu ni ma Seydi Mohamed El Cheikh ma geesu seen waaw bi ma ko séenee boobu treize heures mi ngi jot ay une ci bëccëg njolloor man li ma njëkk xalaat ma ni waaw moom jëmmu ji ak ni mu tolloog mantoom bu bi man teemaa daw ñibbi ni ma ne teemaa daw ñibbi dafa mel na leeram moo ma dippi may bañ dem ci moom sama tànk mu mel ni ay machine ci nekk di ko yóbbu ci moom cheikh ni ma xanaa xamoo man du ma woo nit cëram lay woo wax na dëgg nee na moom du woon nit comme kaay nga daan waaw naa ñëw wala bu ci kaname sa cër lay woo bu la woowee rek sa tànk day jóg wuyu si kenn xamul lan la waaw ah. cheikh alhaaji ngi taxaw ma ñëw mu ni ma tàllalal sa loxo ma tàllal sama loxo mu jàngal ma salaatul fatiha ba pare ni ma def ci téeméer ci salaatul fatiha ma may la cheikh ay wax de te mi ngi may dégg dañuy dem xadara ba dañ fay daje mu ni ma téeméeri salaatul fatiha yi nga jàng may naa la kuy jokk ci tarixa bi ku nekk bu la neexee jokkal ku la neex dogal ñu la ma ko Cheikh wax waaw ma waxtaan ak Cheikh Alhaji Oumar dem mu dellu si la semaine prochaine indi nitu yàlla yu bari yoo xam ne xàmmee naa leen ñu ñëw di fa waxtaan ba léegi béréb baa nga fa kenn waaw Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani wax nu lim nu wax ca garab ga waaw depuis lors nu commencé découvrir les vrais mystères u xayb waaw ba 2001 ma rencontré góor gi fekk na yàlla dogal semaine bi may wax wàllu projet am moo doon semaine ma ni góor gi daal yéeneem te ku baax la fi ma toog laa ko signeel dix ans yokk ko ci plus dix dix ans waaw waaw du dara waaw waaw ñu dem ba mille 2010 malaayika bi ñëw ni ma 10 euh, ans yi nga ko doon si mille 2011 lay jeex ma ni ko nan ko defalaat yeneen yeneen 2 ans ñu defal ko yeneen 2 ans ba léegi góor gee ngi dund bu dajewu la ngeen ku ko yokkal fu mu jëm te nitu sari ay nee na loolu mënul am pour ma wax leen loolu rekk fi mën am waaw nee nañu loolu mënul am mëni leen loolu rekk fi mën am am nga am na benn mbokk benn mbokk nee na ñu gëmul woon wàllu tarixa dafa nekk ci benn dëkk rek di critiquer waaw di wax lu ko neex mag ma ca dëkk ba ñu ñu nettali ko ko mu ni dana dajeeg doomu bàjjanam ndekete doomu bàjjanam ba mu koy wax dana dajeeg moom jaan waa ji génn rek jaan màtt ko te dafa ni woon tarixa du dara mu ni wuy yóbbu leen ma ci kilifa googu mu luggal ma mu ñëw sëriñ bi ni ko lugg dafa aram bi daal yonent bi daawul lugg jaan mu ni ko lugg ma rek mu ni ko déedéet yonent bi daawul lugg jaan lugg baaxul bi daal waaye jooy na ba sonn mu soogee jàng jawharatul kamal raay ko ci tànkam mu daj mu jàng jawharatul kamal raay ko ci tànk mu daj pour wax la ni eh, dégg-dégg rek am solo waaw te dégg-dégg boobu nitu xay bi seen organisation ak ñi ñu àndal tàggali ko mënul am ci seen diggante te loolu mooy seen réalité waaw parenthèse boobu nag bu ngeen gisee ma tijji ko du lenn ñi ñi ànd ak man ñëpp ci moom du xam nañ waaw amul kenn ku mu réer def naa dix kaset yoo xam ni sama dund ba ki may jullee wax naa ko ci mais xanaa ko cassette yaa ngi fi ah xanaa loolu kay moo gën doy waat te te cassette yooyu 2009 laa ko génne woon les dimensions de Cheikhou Tidiane laa ko tuddi fukki cassette la ku mu neex bu subaa nga seet kooku abbu nga déglu sama dund ba ki may jullee sax ak bis bi may génn àdduna mi ngi ci waxtaan bi waaw ku mu neex ab bu ko déglu loolu mooy li ci moo tax yooyu wax ko nii pour lan la pour rek eh, nit ñi bañ di dégg Cheikh Ibrahima mu wax a gaalam rek nu ne xaal ba nangam ba yàqu ca ndax ñun ñëpp lañu yéene jàmm waaw moo tax it ñu ngi dellu di ziyaare bu baax waa xadara bi di ziyaare waa dëkk bi di ñaanal waa daara umul xuraa yàlla may leen li nu soxla ci seen wàllu njàng te def ñu taalibe Mawlaay Cheikh Ahmadou Tijaani xaqan ñuy ànd ak moom di dund ak moom zahiratan wa batinan ànd ak moom ba ba ñuy dugg biir illiyin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wala dunyaati wala dunyaati shukran shukran shukran